merci donc euh, merci donc gars yi ñu suivre ba tey euh, ci xam ne loolu mooy ab euh, manifestation bi nga xam ne mi ngi am à Mbacké vingt-huit Pro ba tey di leen toppal lépp loo xam ne mi ngi am fii ci Mbacké entre force de l'ordre ak ñi nga xam ne ñoom ñooy manifestant yi fii nag nga xam ne nag moom mooy allée boo ko di ñu gën a miin ci Mbacké muy allée Iba Gueye allée Iba nag gis ngeen nag sànq xawoon na am benn benn kii bu ndaw benn rëcc bu ndaw boo xam ne nii euh, dañ doon xaw a dallu mais nag gis nga ni euh, xaw nañu ñëw nag ci euh, doon chargé seen kaw nag li ko waral moom mooy que ni xeer yi nga xam ne donc boobu ba léegi ñu koy sànni rek loolu moom moo waral tamit gars yi chargé waat fi nga xam ne nag moom mooy ci mbedd bi nga xam moom mooy jëm juste nag ñu ngi toll ci pencum paaleen ñu ngi defaat benn recul boo xam ne nii peut-être yëpp ci ay stratégie la yoo xam ne ni dañuy fas yéene naxtaan Euh, ñi nga xam ñoom ñooy manifestants yi euh, wala boog ñu utiliser beneen beneen euh, moyen boo xam ne nii faral di mën a jekkoo mais daal luñ ci mën a xam moom mooy lacrymogène yi moom saf na sap foo mën a xale yi nun mën a def ba mën a dékk ko mais daal saf na sap ba tey gis nga ñu ngi sànni ci kaw seen kaw ñu ngi sànni seen kaw fi nag nemmeeku na fii benn dispositif sécuritaire bu mat sëkk mais nag ci seen côté Euh, li nga xam moom mooy les éléments de la Croix-Rouge ñu ngi ci seen côté di xool ñi nga xam ne ñoom ñooy les blessés ñu mën leen euh, daal di maanaam secourir euh, ci nu mu gën a gaawee rek ndax ñoom nag fi ne fi ñu positionné mooy position bu baax bi xam na ne donc ci ñaari équipe la benn bi mi ngi ci station sel bi beneen bi mu ngi ci rond point entre Touba Mbacké donc léegi rek chargé nañ kon donc situation bi mi ngi gën a mi euh, nga bëgg a yëngutuwaat gis ngeen nag euh, mbedd mi moom mooy mbedd fa Iba Gueye tali ñu ko gën ko xam ci tali Iba Gueye euh, yi nga xam moom mooy char bi nag mi ngi nii suñu wet char baa ngi nii suñu wet nekk en face ak tali bi gis nga auto police bi mi ngi génne foofu noonu ci mbedd kër i Gueye juste rek ci anglam ñàkkul ne dafa dafa dafay tasaare tamit boy yi xale yi nga xam ne ñoom ñooy les manifestants gis nga mi ngi jaar ci biir Euh, fi ñu taaloon pono rek di def ay euh, ay rondam boobu ba léegi euh, gis loolu nag gis nga ñu ngi sànni ñu ngi sànni am na ñun jot a téye nag ci biir oto bi ñu am na ñu jot nekk ci biir oto bi téye leen en tout cas daal xale yi daal danañ am danañ am danañ leen danañ leen danañ leen ci fay daal gis nga jot nañu am ñu ñu teg loxo yaakaar naa ni dina am ñoo xam ne dina leen ci. Euh, ci fay euh, sunu bët yi nag wala bokk ñii euh, PJ Mane la gis ngeen am na benn am na benn jàppante boo xam ne mu ngi xaw a am fële ci diggante donc borom moto bi xamuñu nag lan moo tax ñu téye ko xamuñu nag lan moo tax ñu téye ko waaye daal ci oto bi am na ñu ci nekk tamit. Euh, gis nga am na kun jot a teg loxo benn xale bu ndaw xoolal rek euh, ci xale bu ndaw boo xam ne nii maam jot nañ koo jàpp rek euh, ñu ngi noonu ñuy dóor ci biir oto bi loolu nag lu metti la waaw ñu ngi wax ne nañ ko libéré donc loolu la kon euh, ñi ngi naan euh, xamu ci dara xamul peut li xew euh, waaye daal déggoo dina am ci diggante ñooñu gis nañ donc les éléments de la croix ñu ngi ne di daw di dem intervention peut-être ci benn kër ñu xool rek la xew ci kër gi peut-être am na ku fa yëf yi laal waaw ñu ngi ñu ngi wax ne lacrymogène bi ci loxo la ko dal euh, dëngal bi euh, ba xool donc ñu ne xale bi euh, ñu ne yow donc gis nañ donc police de Mbacké police de Mbacké ci voilà donc euh, benn blessé ngi nii si euh, euh, di yóbbu waaw waaye donc euh, ba tey rek li nga gis nag moom mooy euh, manifestant yi ñu ngi ñu ngi gën a déterminé wu euh, bi ñu déggee ni ki nga xam moom mooy leader bi mi ngi toll héliport ci li ñu jot a dégg ci information. Euh, booy yi nag dafa mel ne dañoo gën a fippu mais nag euh, gis nga nag euh, ay stratégie ak donc ki nga xam ne donc moom mooy moom mooy gémi bi ni nga xam ne donc noonu lay def pour jéem a chargé seen kaw benn benn système rek léegi te léegi rek mu mu mu ci rek gis nga donc dégg waaw daf doon denk benn moyen benn moyen de protection bu boy di utiliser moom lañ doon euh, jéem a jël jël nañ ko nag euh, fexe nañ ba jël ko donc da doon euh, ci lañu xale yi di nëbbatu léeg-léeg loolu nag day tax bu leen sànnee rek ay lacrymogène du am na yegg ci ñoom. foule euh, bi ngeen gis nag di ñëw euh, duñ ay manifestant mais Baye Fall yi demoon ca liggéey ba la Baye Fall Baye Fall yi demoon ca liggéey ba ñoom ñoo ñëw nii di di di di di ñibbi gannaaw ba ñu ba ñu ba waaw ñu rek ñu nag euh, bokkuñ ci dara manifestant yi ñii ñëpp ay. ay ay ay Baay Faal lañ yoo xam ne nii ñu ngi jóge woon te liggéeyub sëñ bi waaye du ñàkk nag ñi ci rax du ñàkk nag ñi nga xam ne donc ñoom ñooy euh, manifestant yi ci rax euh, ñu ñu ñu ñu ñu fàttali loolu rek la demee dund ay manifestant mais ñu demoon ci liggéey ba di soog a wàññeeku noonu muy Baay Faal yi waaye xam naa ne dana jël seen yoonu bopp léegi euh, waaw ak góor gis na lépp benn groupe nag xamuñu nag muy seen yéen ah dina euh, ñoom nag ñi nga man ci yi euh, ñenn ci ñoom euh, ñu ngi nag dem ah ah dégg nga nag ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi wër di baalu ñi ngi wër di baalu peut-être nag am na am na lu mu dégg peut euh, mais xamaguñ exactement lan la mais yaakaar naa ni daal moom tey euh, euh, benn groupe la rek ñu xoolee nag ñoom ak ñeneen yi beneen groupe bi ak tamit lan mooy euh, am rek seen biir mais ñu dox di dem mais nag ñu jëm sànq xawoon na tàng tuuti nag euh, lan lan fay fekk nag moo jaaxal ñépp nag kon nag euh, dégg ngeen nag la paix rek la ñuy wax waaw sànniwul peut-être dañuy dox rek ndànk dem seen yoon ay ay groupe la nag bu groupe ay groupe ñoom ñoo fi nekk bu bu ñii di dox jàmm ñii itam ñi ngi wéy ba léegi ñoom di sànnante ak way takk der yi kon nag ay ay ay ay ay groupe yu dispersé la ñii di dox ci jàmm làppe paix nee nañ ñii ba léegi ñoom di wéy di jàmmaarloog way takk der yi gis ngeen leen na la ca boori péncum paaleen jàpp bunt li nga xam ne moom mooy Sud FM rajo ak Dakar ak Actu foofu noonu la ñu gën a ëppee donc euh, foofu la ñu tamit taal ñeenti ñetti tàkk-tàkk maanaam ay pono lañu fa teg euh, gis ngeen sunu sunu caméraman boobu noonu sëñ Mbàkke euh, ñoom waa Dakar ak ñu ngi noonu waaw Ousseynou Ndiaye ñoom tamit ñoom ñëpp gis ngeen ñu ngi ci terrain bi gars yëpp wàcc nañ mais xam naa ne saf na sàpp ci ñoom gis ngeen donc ba tey comme ni ma ko waxee rek sànq ñaari groupe la ñii di dox. jàmm ñii di dox ba léegi ci aw jàmmaarloo kon donc yëf yi dana jaxasoo nag pour mu neex a euh, dal fii nga xam ne donc moom mooy euh, Mbàkke ci pencum Paaleen euh, li ko war yooyu yëpp ko xoon sànq rek ñaari groupe yi benn groupe bi nag nga xam ne ñoo jóge woon boori station ancienne station Elton bi ñi ngi ñëw nag di wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fële ñu ne leen nanu bàyyi seen sànni yi Euh, coow li jeex na euh, gis nga ni ñaari groupe la sànq ba ma waxee ñii di dox jàmm ñii di dox ci aw ay ñi ba léegi ñi dégguñu ñu ngi woy di sànnanteeg euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi mu nar a métti lool nag ndax du yomb xam naa ne ci ñaari groupe yëpp ñii ñu dox di dal di dëfal ñii di dox ba tey ci jàmmaarloo dafa mel ne déggoogul waaye xam naa du ñàkk ñu gisee ñoom léegi léegi gisee ñoom ci ci ci ci maanaam euh, ñu waxtaan mais foule bi daal xaw na takk lool.